salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu homme politique yi ma bokkal Touba di nuyu sama nattaango yi ma fi nekkal yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñoom laay àndal ci baasu Serigne Fallou Mbacké waaye di jiital ci nuyu bi nag Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Mbacké Soxna Lo en tant que jigéen loolu boo ma ko laajee dinaa ci sawar ci tontu la ndax dañ ko daan dund lu yàgg tey ñu di ko dundaat mu ñu daan ko dund muy am solo. tay ñu diko dund bu ñak solo lol ci momi la Macky Sall gi mais ñun dañ ko daan dund lu neex nak bi ñu nekkee PDS di and ak Serigne Fallou mais légui bu 8 mars ñee ñun duñ ko yëg sax. waaw politique nak mom def naa ci ay jaar-jaar yu am solo ndax def naa ci ñaar fukki ak ñent ñaar fukki ak ñent politique nak du caaxaan waye nak suñu borom daf ma mësa musal ci man ben responsable rek la mësa am muy Serigne Fallou Mbacké mom la mësa atal ci politique musuma and ak kenn. moom laa mës sa àndal fii ma toog di wax ak yow itam ci ndigalam laay dox ci politique te ci baasam laay politique ndax maa nekk responsable de femme am jiital ko ay jigéenam yëpp may ànd ak moom ci politique waaye mosuma ànd ak keneen. waaw défet bi nag moom metti na mettiwul ndax euh, Sonko bi mu juddoo yàggul mais ñun dafa fekkoon ñuy liggéey ci coalition bu am solo ñu koy wax ànd soxali Sénégal ñu demoon ci ci liste député yi man mi bokkoon naa ci maa nekkoon deuxième liste nationale ci député jàlluñu ñu tok yor suñu muma diko doxal ba Sonko ñëw talal loxo sëñ fallu ma and ak mom biñu demit Sonko li ñu ko dundé moy ñun la mësa gëm ne and ak Sonko daanu mo gën and ak bépp candidat daanu na Sonko ndaw la ci amna na avenir ci adina jeexagul. jigen mom xagn na amoon na ndax parité yaaka ne ko fi taxawalee nekkoon na lu mané ci jigen ñep ñep gisan ci seen bop contane ci mais parité dafa délu ginaaw ñun ko fenn. ah loolu moom maanaam ci président bi fi nekk la rek moo joxut jigéen ci cëram président la waaw ndax moom mooy mooy lu ko neex. jigéen nag sama référence soxna Ami Mbackeem sëñ Mbacke soxna waaw mooy sama référence ci ci yiw ak ci maandu ak ci gëm boppam looloo tax ma def ko référence. ah wax ñu góorgóorlu rek ci gëm seen bopp. ndax nit warul yaakaar nit yàlla la war a yaakaar ñun nag ki ñuy pro politique bu ànd ak diine ak ngor ñun toujours ci ngor ak diine la ñuy wax ñuy référé wu ci loolu. parce que ñun suñu politique yaakaar naa ne suñu baas bi ñi ci bokk may sant bu baax xale yi may àndal muy ndey lay Faati Gueye Faat yaay Ami Ndaw Xadi di Seck jàpp naa ne dema ko fenn ba gis nu fa ñun dañoo gëm suñu bopp ñun liggéey la ñu gëm def suñu formation nekk yor ko di ci liggéey. 2000 bi Ablaye Wade faloo ba léegi sëñ Fallou mi ngi indi formation ci dëkk bi moo fi jëkk indi banque bu ñu wax Taif Xéewal bu ñu koy seet tey noo ngi ci junniy groupement ak juróomi téeméer ak juróom fukk yoo xam ne formé nañ ko ci dëkk bi yor ko di liggéey suñu liggéey ci kenn dégguñu ci benn bruit politique nag du saagante du xastante du waxante ju ñaaw mën a cadre sa mbooloo la téye ko fexe bañ di la déglu nga di leen jariñ lu ñu mën a jàpp ñu soxla fi kenn te loolu sëñ Fallou sant te ci loolu la ñu dox waaw fu ñu waxantee lu ñaaw daal bokkuñu ci te noo ngi politique nag ci dëkk bu baax a baax. Hmm? maa ngi ko doon dégg sax ci ndax dama ko doon gis ay jaar jaaram ci programme mu maam Xari Mbàkkeem Sëñ Murtala ma gis ko nag muy site bu am solo may laa si sama moroomu jigéen ñëpp ñi nga xam ne dañuy politique it xamal leen ne site bu am solo la te ku bëgg loo bëgg mu tasaaroo te ànd akug yiw akug dal dina leen seet si jërëjëf.